motion de censure mooy la d'ordinaire terme boobu ay terme la ak ay ak ay yoo xam dañ ko copier ci li nga xam ne mooy la France ci li ñuy wax cinquième république dans bu ñuy xool mën ñu remonter dans les années cinquante fële ca France ñaari type de motion de censure moo am mooy li ñuy wax motion de censure spontanée bi nga xam ne euh, assemblée nationale député yi ñoom ñoo ni amuñu confiance ci gouvernement bi nañ ko daaneel beneen parce que bu ñu ni amuñu confiance ci gouvernement amuñu confiance ci gouver benn gouvernement parce que le chef gouvernement mooy kan mooy tey Sénégal premier ministre bi kan la Ousmane Sonko bu ñu ne wóoluñu ko li Ousmane Sonko wax ni ñoom <laughs> ko àndal li ñuy def mooy le gouvernement doit démissionner ñuy xalaat créé waat beneen beneen chose gouvernement ci boppam mooy engagé sa responsabilité par rapport à un texte de loi wala yu mel noonu boo ko defee euh, muy la deuxième ou le le le mode yi li nga xam ne moom la ñuy wax euh, motion de censure mu mën a tax ki nga xam ne mooy premier ministre ñu mën ko wàcce tey ji amul kenn amul kenn mooy deuxième bi mooy motion de censure provoquée amul kenn ci Sénégal ku xalaat ni assemblée nationale bi nga xam ne quand même cent soixante députés la suñu tumut ñu ne la cinquante wala trente et quelques ñoom ñooy nekk euh, euh, yeewu askan wi ñu ne la la ca des yëpp la ca des yëpp Benno Bokk Yaakaar la ak yi ay seeni alliés ñu ne la ñëpp ñu ca nekk Benno Bokk Yaakaar la moo am je pense quatre-vingt-un xaw quatre-vingt bu fekkee ne samay souvenir baaxoon na ña ca des mooy benn mooy Pape Djibril Fall menn mooy euh, benn bi mooy mooy mooy quelques UPDS treize la xaw ma ñaata mooy quelques yu taxawu Sénégal ña ca des Benno Bokk Yaakaar euh, moo jiite lépp te tey ñooñu ñëpp comme ni ma ne ko waxee woon parce que ñun euh, gàcce ngaalaama waxtu alerte bi mu jotee taxaw nañu alerté nañ ñi nga xam ne ñooy ay politiciens parce que la ma leen waxoon démb moom laa di waxaat tey du ma politicien bokkuma ci politiciens tax na ñun lu ñu xalaat dañ koy wax sénégalais ñu ne ne lii mooy ñëw. léegi nag ñoom politiciens yi ak seeni calcul ak seeni peut-être seeni manière de faire ñoom ñooy xam ni ñuy doxale ba ñuy dem defi ay ay alliance yoo xam ne moo ñu indi tey ci guuta bi parce que bu fekkee woon ni Pastef defuloon alliance ak ñuy taxaw bu bu bu bu Khalifa Sall tey sénégalais yi duñu xalaat wa taxawu Khalifa Sall dinañu toog ba ñu mel ni ay noon ak Ousmane Sonko dañu xalaat ni PDS fan mu war a mën a taxawaayam te ñooñu ñëpp seen leader xalaat nañ ni ba nu mënulee nekk ba nu mënulee yor nguur gi c' est à cause de Ousmane Sonko donc tey aussi longtemps que Ousmane Sonko sera un acteur important buy nekk fii ñoom xalaat nañ ni seen avenir politique jeex na donc lépp lu mën a galgal lépp lu mën a faagaagal ba Ousmane Sonko du fi nekk premier ministre du fi nekk président de république mooy leen di gënal moo tax tey bi ñuy wax Ousmane Sonko kaay nga wuyu ñu fi nga xam ne mooy assemblée nationale nga def sa déclaration de politique générale dama ne sama journaliste yi ne leen ce qui est en jeu plus important et plus grave que li ñuy wax parce que li nga xam ne mooy piège bi ñu ko doon tàndal mooy mu ñëw parce que du affaire politique affaire noonoo la ñoom xooluwuñu Ousmane Sonko comme un adversaire politique wala yooyu déedéet luñ ko xoolee mooy seen noon lu ñu mën def lu ñu reproché lu bëri ci Macky Sall mooy lu tax mu bàyyi ko mu génn kaso ba lu tax fexewul woon ba ñu rey ko parce que loolu moo doon seen kàddu dañ ko waroon a rey parce que wax nañ ko à plusieurs reprises donc tey bu fekkee ne yërmande yàlla dugg na président Macky Sall mooy li may wax la grâce divine dugg na ko ba Macky Sall teg lépp ci suuf yàlla def Ousmane Sonko nekk premier ministre bi premier ministre boobu moo dig leen ne leen la reddition des comptes dina am opposition bi nga xam ne da ngeen am alal ju bari te muy alal ju bëri ji nga xam ne ñu bëri da ngeen ko sàcc di ngeen ko rendre compte ñooñu nu ñu mën a fexe ba dindi nit ki nga xam ne moo leen dig ay dóor dinañ ko def loolu moo tax euh, euh, ñu taxaw ñu ni Ousmane Sonko nañ ñëw wuy si parce que bu leen wuy see lu simple la ni wax mooy motion de censure la ñuy déposé parce que waxoon naa ay fan c'est vrai que musuma jàkkaarloo ak sénégalais pour ma indi leen ay jaa ngeen jëfam ah, mbokk internet yi gannaaw bi ñu digloo ki nga xam ne moom moo di Babacar Touré ñëpp ràññee nañ ko ci motion de censure yi nga xam ne euh, nemmeeku nañ que ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di opposition bi jamono bi ñu toll nii dañuy def le tout def le tout pour rek fexe ba ñu daal di euh, jëlee ki nga xam ne moo di président Ousmane Sonko rawatina nag maanaam nekk gi nga xam ne nekk na ko premier ministre ci dayo yi nga xam ne am na ko fii ci biir réew mi rawatina ci assemblée nationale ak déclaration bi nga xam ne war na koo def mën nañu déclaration boobu moo jur coow li nga xam ne moom la ñuy dégg nii lépp lépp lépp lépp lépp léegi nag lan moo waral ñi nga xam ne ñoom ñoo di opposition bi jamono bii ñu toll nii ñu su kene moom mii di président Ousmane Sonko am na loo xam ne moom mooy priorité ci moom te du déclaration bi gannaaw ba ñu ragalee que ne danañ dissoudre li nga xam ne moom moo di assemblée nationale te loolee gàcce lay doon si ñoom parce que tamit du leen li nga xam ne moom moo di jàmm ñëpp gis nañ li nga xam ne moom moo xew ndaxte bu fekkente pourcentage ci assemblée nationale ñoom ñoo ko fa ëppale wante est-ce que ëppale fa tax na nag lu leen neex ñu def ko fa di buur di buum loolee nekk li nga xam ne moom la ñu ragal jamono bi ñu toll nii ndaxte gis nañ que ne pour ñu dissoudre li nga xam ne moom moo di assemblée nationale jamono bi ñu toll nii mën nañ ni lu yomb lool la gannaaw bi ñu nemmi ko xët-xët yeeg ñëgg-ñëgg yi nga xam ne jot na fee daal di am que ne kat moom mii di président Ousmane Sonko war naa mën a dox li nga xam ne rek moom moo di tànki jàmm te tamit war naa mën a delloosiwaat xel ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di yenn ci ay député yoo xam ne dañoo mel ne kuy jamono bii ñu toll nii te li tax ñuy jëfaru nag du lenn lu dul ne dañoo gisatul seen bopp ci assemblée nationale nañ waxante dëgg foo xam ne da nga fa daan dem di yëkkati ay saaga foo xam ne da nga fa dem di tagg ay doomi aadama comme niñ ko waxee woon rek tey ñu dem ba bis ñëw ñu ne xam-xam lañ fi soxla xam-xam boo xam ne débat war nañ ci am keneen képp koo xam ne tey jox nañ la say minute war ngaa def le tout ngaa def le tout ba nga daal di indi li nga xam ne rek moom moo di say intervention keneen kat ñëpp ñëpp ñëpp dañuy def liñ man kon nag tey dafa jaadu ki nga xam ne moom moo di président de la république te ñëpp miin ko jamono bi ñu toll nii mu taxaw yëkkati ay kàddoom jàkkaarloo ak sénégalais exact mu wax lan mooy dayob assemblée nationale ak timit fan lañ war a daal di mujjee ndaxte kat loolee moom mooy nekk li nga xam ne tey bu ñu ko defee mën nañu am li nga xam ne moom la beneen point bi tamit foofule ca diwaanu Colobane ku nekk gis na jamono bi ñu defaraat gaak jekk-jekkal bi nga xam ne moo ngi fay am ñu si baree baree bari jàpp ko ne moom mi di président Ousmane Sonko moo waral mbaboor bi ba fekk na li olof Njaay di wax ne seytaane waxul dëgg wante yàq nay xalaat ndaxte tamit donte la ñoom lu baax lañ ci jublu wante am nañu ko def ñoo xam ne tey jaxase population bi ak nga xam ne ñoom lañ bëgg te loolee kat pour mu am mën naa nekk lu yomb ndaxte gis nañ ñi nga xam ne tey seen xel ñorul ñoom ñu ngi jàpp que ni moom mii di Ousmane Sonko daf leen a bëgg a yóbbu ci ab toroxtaange